Euh, en direct ngeen am ni euh, ci groupe sopp mam xalifa mu loo xam ne euh, ñu ngi convoqué le xalifa général de Léona Niassène police moom imam Mouhamed Ibrahim Niass ngir julli gin juli tey xalifa baa ngi nii di wujji tey police wedd nag gis bokku si ñu bëree dañ ko doon weddi waaye mi ngi nii ne faa nga kenn du ko jeex police centrale moo convoqué le xalifa général de na Niassène yéen ñëpp yéen ko gis noonu s'il vous plaît ngeen partage tout le monde yéen ñëpp ñu ngi leen ñaan ngeen partagé ko laahi wa rasuli muy Serigne si Ahmed si al Khalifa xam ne tey moo nekk ci bopp njaboot gi moo ubbi lu jumaa ji moo ko ubbi moo ko jiite waaw ànd ak euh, ki nga xam ne mooy doomam Mouhamed Ibrahim ngi gis daal bépp a ngi nii tey taxaw incha allah waaw yéen ñëpp yéen a ngi ko gisee noonu fa tabarakallahu euh, non non si gannaaw la jàll non si gannaaw man de bu ma doon ñëw moom gisuma woon ni wuy